Je suis un étudiant en master à la faculté de lettres et sciences humaines. D'abord, je suis de point de presse bi suis euh, vraiment suñu yi nga aussi point de presse point de presse pour ñaawlu li parce que xamoon nañ parce ils voulaient des sanctions exemplaires def nañ ko sanctions Il y a des des perpètes des sanctions 5 ans 12 ans pour l'année